juróom-juróom. Aïcha <laughs> Souka ñan ñooy Adja tey nag maa ngi fi am ki nga xam ne rek moom moo di Amadou Wuri Diallo commerçant la. Mhm. ak ki nga xam ne rek moom moo di Mbaye Ndiaye Amadou Wuri ñu ngi lay nuyu. Eh, ñu ngi sant yàlla no mhm. di nga am mbégte no ci invitation bu am solo bi. Uh-huh. Eh, di wax ni ni nga sant bu baax a baax wax dëgg fa yàlla. parce que aussi tamit ñëw ci plateau télévision yomb. mosoo ñëw fii sax ndaxte c'est la première fois nga ñëw. fois boutique non ñu teg la ci mm-hmm. boutique <laughs> comptoir laa tàmm. mos tàmm maa toog nii non di wax ci lu jëm ci wàllu wàllu wàllu télé. Mm-hmm. waaye maa ngi nuyu ñoom nen gàll no ñu wax leen seetaan. fii ngay sa xool ah fii la wala man dama gis fee ah kon fii la. fii la waaw eh, li yat bi fii ngay xool <laughs> eh, waa Amadou lu mm-hmm. eh. tax euh, li président Macky Sall wax euh, jëfe woo leen ko. Eh, mais président Macky nee na ngeen wàññi ngeen du ngeen wàññi. mënul nekk ndaxte mathématiquement noo baagul. ndax lan mathématiquement parce que président Macky Sall non. Eh, dafa a hmm. la def parce que bu fekkente ni bi. dégg nga ah, wax ingénieur bi leeru ma. parce que li ma koy wax noonu moo nekka ni lu muy wax ci affaire bi. Ah, ah. Eh, dara baaxul. yow yaa nga jëndee suukar magasin nga dem. Hmm. nga jënd sa suukar noonu ñu jaay la ko ci. kilo la. Mhm. boo ko calculer cent cinquante cent cinquante kilo bi. Mhm. dafa la dikk six cent yu manqué no vingt franc. six yu manqué vingt franc no moom nga ko jëndee no yaa ngi ci doon am. dix franc dama bëgg nga déglu ma oui six cent yu manqué vingt franc. Mhm. maanaam ñeenti dërëm la six cent yi no mu manqué. léegi bu fekkee ne président Macky Sall dafa mu wax ne def koy jaay cinq cent soixante quinze boutique nan nga ko mun a jëndee no saaku kilo bu nga jaay noonu nga perte dërëm yi kese dërëm mu nga kese yow eh, si dërëmu dërëm yooyu xam nga ñaata ah, boo ko jëlee noo ci juróom fukki kilo du nekk juróom fukki dërëm mm-hmm. yi mbuusu dégg nga ko fàtte mm-hmm. mbuusu bu nga xam ne moom nga solu kii bi noonu dégg nga ko jënd mbuusu dërëm la mu du nekk téeméeri mm-hmm. transportu transportu yaa ngi fay sareeti no sareeti bi ñëw no nga kam ne ki ka yenu mu dugal ko ñakka boobu no ak solo bi nga ko solo ak fay sa palaasi bi nga ko jaayee no loolu yëpp noo ko mun a tege na boole ko lekka naani ku ne xam na ni palaatu ceeb dafa seer bind boolu xaalis soxna nekku fi te soxna dafay ñëw bu ngeen yéen seen soxna normalement dafiy ñëw. pool léegi ngeen di togg. ñu dégg nga bind boolu. ñu bind boolu dégg nga mbir mi ci nu mu gën a méttee noonu loolu la wax. kon plat wu maa fi xaako. dafa maa fi xaako non seeri na. 500 rek lay jël ñambi bi ak kii bi xobu ñambi. xobu ñambi dafa jafe. dafa ah, seer ak seerul nag. ak kañ xobu ñambi léegi bu njëkk ba dañu ko maye. ak léegi dañu ko jaay ah mais bi tiga xam nga léegi tiga dega no dafa seer gerte amul dégg nga baykat yi no mhm. diw tiir yi ak kanja mhm. yow koolu nga loolu lépp jaay ne jaay mhm. léegi danga ñëw nga jaay no nga perte président dafa mel ni def ñu bugg a génn dëkk bi no ci nii. parce que lii bu continué no. <laughs> génn ma dëkk bi. dañu génn dëkk bi no. dëgg la ñu dem Mali no wala ñu dem Gambie no ñu jéem a. wala ngeen dellu Guinée sax ngeen dellu Guinée. dellu Guinée du solution waaye Mali wala fële laa wax. <laughs> waaw léegi yéen lan ngeen war a lan ngeen nar a wàññi fi mu ne lii lépp lan ngeen nar a wàññi. léegi non il faut président mu tegaat lépp ci taabale bi no mu woo ñu. Mhm. ñun pour ñi nga xam ne ñoo nekk sénégalais détail détaillant nga xam ne ñoo am contact direct ak ñi nga xamante ne bi ñooy sénégalais bi ya mm-hmm. ay ñu waxtaan xool bu ko defee président bu mu waxee ne ba xool na ñu jaayee suukar no six cent cinquante six cent cinquante bariwul ñu nga xam ne boo jaay nga am ah, six cent ah, dërëm mu leen jaayee cinq cent soixante quinze mais mu boo jaay am kilo boo jaay foofu fukki dërëmu na parce que fukki dërëm fukki dërëm fukki dërëm léegi yéen ñi koy jënd nag ni koy jënd yi xalaat ngeen leen yërëm ngeen ñi koy jënd ku munul jënd kilo na nga jënd liibaru ah ñu war a jëfal jus nag liibar nag waaw ku munul jënd liibar génn waa liibar yi loo gën waa liibar dafa tuuti alors jërëjëf Amadou <laughs> jërëjëf euh, <laughs> Wuri ma ciy nuyu sama rakk ji Adja Galerie nekk fa li nga xam ne rek moo di cër de conk ba ak tonton Bass nuyu naa la sama rakk ji bu baax a baax di nuyu wàcceeskaay euh, benn dëkk ñaari gaar di leen wax ni leen namm naa leen namm naa leen leen yéen nag donc dañuy dem ci Mbaye Ndiaye mbay nuyu nañ la Ndiaye. Eh, maa ngi sant yàlla yow euh, la président Macky Sall nga xam ni mooy yore lépp lu jëm ci wàllu wàññi gi. Mhm. macha allah nga xam ni def koy teg ci temps bi Sénégal sonné lool. Mhm. mu daal xool prix yi daal koy kase loolu nga xam ni wax dëgg fa yàlla <coughs> ku daawutoon yaasa léegi yaa ngi yaasa ku daawutoon tamit wax dëgg fa yàlla togg ceebu yëpp sa ceeb yaa ngi niin léegi dëkk bi neex na macha allah sant yàlla kooku nag mérité quatrième mandat. Mhm. Mhm. Hmm. Ah. waaw wax na ko. yow sax yow xam nga da nga daan naan table buñ la musaana invité fii. Mhm. buñ ne la nga wax ci troisième mandat. Ah, nga ni dootoo ko waxati. mais nag tungu ne du teew nuy nataal. li nga waxoon waxaat ko. waa yow yaa ngi ci trois man quatrième bi laa commencé di négocier. waaw <laughs> quatrième mandat 2024. waaw bu dee léegi kon fi mu ne. 2024 waxuma boobu. yow fi ne Macky mooy sa kii di 2000. 29 waaye wax quatrième yow waay sama boobu laa ñëw pour wax ko ci plateau bi troisième bi leer na tur quatrième bi 2029 parce que le président Macky Sall def fee lu kenn deful. te <laughs> ah, fee ah, nañ ko de fële laa yéen waa ah, fële la ñuy lijjal sàqe déet li mu wax kat dafa rëy ah, wax dëgg fa yàlla soxna si ñun xam nañ président wax dëgg fa yàlla mais président ah, baax na président li mu def ci réew mi den koo musa gis ku ko def lan la fi def travail lan la ngi nii hmm. teer baa dangaa musoon a xalaat teer ci sa ci sa dund BRT bi bi ata ñi ngi xamiliku parce que fële moo amoon problème bi waa waa lañ am amut nu ñuy jaalante plan bi moo ko teg. romb naa waa bi waa plan bi xaw naa parce que bi waxoon naa leen ñu tàmbalee ko géej way continuer ba mu yëg. mais ñu ne ñu ne non technique dañ koy def nii dañuy def nii léegi nag tëli yi dañoo jaxasoo ba tëli yi ñu xool xool xamatuñ fu ne waxi nañ ba léegi nag. ah parce que télé bii jógee fii. et puis ñi ngeen jotoon waroon na jëm ñi ngeen jotoon a dédommagé. ndekete dafa jëlee xàlle jël tali ah. des dañoo ñëwaat. Ah, tabaxaat dañoo ñëwaat tabaxaat. xamatuñ ah. fu ñu xàlloo nag. fu ñu tabax moomuñu ko. léegi wax dëgg fa yàlla euh, bi. réer na réer na kay. Ah. réer na kon nag yow kon loolu la kon loolu la liggéey ba war a toogaat. fi mu toll nii moom il faut il faut il faut ngeen bàyyi ñuuxi mili ko ci BRT bi xool fu. BRT bi est-ce que nekkul ñu yor projet bi Sonko lañ faral moo tax. doy na waar de man ay Sonko leen jàpp naa ni. ana Issa parce que dañoo waxi parce que dafa mel ni dañ doon waxi waa Sonko yi sol ay teni BRT. ay waay ay waay mu ne ñaari waxi waxi. parce que bu doon ñun kese billaay du ñu réer. parce que xoolal fii rond point liberté 6 bi gisoo ñeenti rond-point la ah doy na waar ruwa te bëri te bëri. léegi da ngay jaar fii ba ceeb oto fël fee. <laughs> beneen oto fël fee. léegi xamoo ko xam nañ ko tamit. walaay xamatuñu ko de. BRT bi jaxasoo na moom parce que bu njëkk ba da nga daan def nii wér rek normalement. parce que commencement bi ñun ñëpp. waaw mais dafa am ñuy sol te ni BRT ndekete Sonko la. waaw mbay <laughs> mais tamit boo waxee ñu wax ci waaw mbay. est-ce que yéen wax dëgg yàlla seen président bi yow BRT bi am na bu dugg ci kër. ban la buñ gas ba mu dugg ci kër jam ah. <laughs> waa mbay léegi yow lii ngeen est-ce ngeen ko wax ni président Macky Sall. ko waxee Macky kañ mi dem ba gars yi BRT ba dugg këram gi ci Mermoz mu ne waa lii la ñu ne ko BRT bi. ah BRT bi mm-hmm. waaw kër Macky ca Mermoz. <laughs> BRT bi dugg na këram. ndeysaan waaw sa doom ji fu mu mujjee. sa doom ji fu mu mujjee. Ah, <laughs> BRT bi. berté bi la doon waxi moom it ba daal di yem ci loolu jërëjëf donc àdduma incha allahu rabbi jaajëf su kay daane ñu ngi lay jaajëfal di jaajëfal également say gan di jaajëfal ñin bokkaloon na plateau bi di ci